ndax mën nañoo jàpp ni rek junior mooy nekk danay politique bu euh, Moustapha Cissé Lo man politique dama ko suur dama ko wàccu dama ko gedd parce que xam naa ne du lu am solo du lu am sens parce que duñ ci revenir aat ñu bari xam nañ ko ci ndaw ñi nga xamante ne nii mëne nañ wala joxe woon nañ ci ay guddi suñu bakkan pour kii fi nekk tey di mag Sall jot ci bopp nguur gi booba yombul woon jeune boo xamante ne ñeme na mëne yooyu combat ñi dëkk Touba xam ma tey du bisu politique du ma ci wax mais dama ci laal tuuti ñu jéem a def la tout ba mu jot ci pouvoir bi mu jotee ci pouvoir am nañ déception bu rëy rëy kon man tey ji jàpp naa ne benn politique laay mënee te ci laa nekk depuis des années mooy jéem a xool nan laay def ba Touba bokk ci ndaw ñu koy développé ma yaakaar Serigne Touba gëm ko wóolu ko muy kenn ci man koo xamante ni jàpp naa ne lim man ci man ku yàlla bind ci àdduna munoo ko ci man kon man sama politique ci taalibe Serigne Touba ak njabootuk Serigne Touba ak dëkkub Serigne Touba bi foofu laa koy mëne mais du ay leader politique yu waye di yii nii moom xam ne jom daray jom nekkul ci ñoom. gis nañ koo xam ne jàpp na ni am na amal nañ njariñ réew mi te jàpp na ni jom la joo xam ne bu ko wonee am na ñoo xam ne jàpp nañ daal mën a doxal réew mi di Ousmane Sonko gisoon nañ sax ci euh, mois de février nga doon ko jàppal tànk euh, loolu ndax euh, pare nga tey jii pour bu ñu la poussé tey jii nga lijjanti ko nekk fii représenté ko. non am Ousmane am nañu ko représenté ci Touba maa ngi leen di nuyu jeunes yu jeunes yu dynamique jeunes yu am engagement ci partem lañ bokk man bokk bokkoon ci partem man injustice laa d'accord euh, relation yaakaar naa benn yoon lañ ma sa wax téléphone di ko nuyu ko di nuyu soxnaam Anna c'est euh, benn yoon lañ ma sa wax téléphone te yaakaar naa du ci jamono yii yëpp boobu yii coow yii am coow politique bi amul ci leneen lañ doon wax téléphone parce que sa soxnaam di soxna Anna euh, c'est ma sama rakk la suma xarit la euh, ci moom yaakaar naa ci la suñu relation ki mais du jëmmi Ousmane Sonko moo taxoon ma mais injustice biñ ko doon teg moo taxoon ma dem jàppale ko ci combat yi ma mënoon yëpp ndax dama ne woon suñ ko woowee dinaa wuy ji bañ ko woowee wuy ji naa yaakaar naa 3 jours wala 4 jours maa ngi woon ci mbedd mi comme ni ko Sénégal yëpp doon defee loolu laa gëmoon mais bi ma ci pare damay dem nekk ci samay activité damay dem nekk ci sama liggéey honorable Moustapha Cissé Lo gis nañ ko mu daan xeexal askan wi ci injustice lu ci mel ni assemblée nationale jamono ji ñun nemmiku ay giite ñaase ak ay wàllu mbuxu mu fa xew tey ji ndax jàpp nga ne tey bu fa nekkoon rek dina mën a porter le combat non Sénégal yaakaar naa du Cissé moo mën a porter combat Sénégal Sénégal moo weng juutu kenn xam yàlla ñu yàlla musal yàlla ñu mucc ci gaal gi nga xamante ni dafa ko ni ko ne ma koy mën a waxee dafa mu ngi suux euh, jàpp naa ne du benn du benn nit boo xamante ne ni benn personne moo mën a jubbanti gaal googu noonu gaal googu sénégalais yi nga xam ne ñoo gëm seen bopp ñoo gëm réew mi bëgg réew mi pas des intérêts ñooñ ñoo mën a jëlaat gaal gi teg ko ci raay bi teg ko ci digg géej gi pour ñëpp mën a sauver mais pas benn personne. Mhm. ngay xeexal injustice gis nañ jamono ji ni euh, données à caractère personnel lëmbee réew mi kenn ko ne di publier ay vidéo ba ki ci mujj di euh, Bougazelli ak ñoom kilifa loolu noo ko jàngate yow en tant que sénégalais. waaw ni ma koy jàngate xëy na réew mi moo tollu foofu ah réew mi moo toll foofu euh, ki nga tudd léegi su dee nee nga kilifa kilifa jeune la boo xam ne peut-être mi ngi ci benn mouvement di xeexal Sénégal même su fekkee li ñu coow li man duma ci wax parce que xaw ma dëgg-dëgg lan moo xew mais vidéo bi nga xamante ni une député gis naa ko ñu jàpp ko ak ay phobie muy Bougane li molote ko kooku su rey dagaloo dañ koo war a rey parce que li gën a garaaw mooy bi mu defee loolu ba pare dafa dafa dafa dafa sex dafa dafa man li ma ko mën a waxee dafa sex làmmiñu sekku dem di jéem a wej weje di wax wax ju bëri genre mag ñu mel noonu te foo leen fekk ñoo yor làmmiñ wu dijj làmmiñ wu ñaw mel na ñoom ñoo gën a xam nit ñi wala ñoo gën a yewu nit ñi yow da nga demoon di def affaire trafic billet foo billet nga génn daw di sooyee sa bopp di wax yàlla nattu la quelque temps après ñu publier benn vidéo man su ma la moom damay lem sama genn noppi mais pas non si mais pas du dem di toog di wax wax joo xamante ne ni ak di accuser ay gendarme yoo xamante ni ku ne nga koy tëkk ak di ko kii yàlla moo ko mu di borom njaboot bu ñu publier vidéo bi est-ce que du yoon tamit moom tamit mu génn euh, setal deram. moom ba mu borom njaboot ci la waroon a bañ dugal fu mel noonu loxoom man loolu jomm naa ko loolu jomm naa ko man duma ma député du dara xale bu ndaw laa mais jomm naa ñu may fekk ñi ma xam xam nañ ne yooyu duma ci yëngu xalaatuma ko ay faux billets loolu ñàkkal sa bopp fayda lu la ci fekk da koy assumé bi mu demee pour wut alal ba loolu fekk ko ci dafa waroon a lem ab génnam noppi waaye dem ci plateau télévision yëpp di coow di défendre boppam di xas ñenn ñi di saaga ñenn ñi <laughs> xamoon na ne yaakaar naa lu mel nii dina ko arrivé. ñi ci mel ni ñoom Kilifeu ak Simon ak ñoom seen vidéo. non jeunes yooyu moom laa la wax boobu maîtriser wu ma boobu vidéo boobu noonu. xaw ma parce que ñiy wax nañ version yi jotuma version yi mais même su fekkente ne loolu am na jàpp naa ne amul lu garaaw loo xamante ne nii dafa bokk rek ki nga xam ne responsable la dafa bokk bokk rek ki nga xam ne député à l'Assemblée nationale la li ji kilifa jigu ko ci dara baaxu ci su fekkente ñoom kilifa li ñu leen di topp lu am la lu nekk la jàpp naa ne du lu gën mais àdduna mooy doxee noonu moo am ay peu mais dafa bokk rek ki nga xamante ne ay sénégalais ñoo la fal di la fay weer jox la oto jox la carburant nga mën a dem di dugg ci lu daaneel seen économie ak euh, réew loolu mooy lu garaaw voilà. ani kilifa gi sëñ Moustapha Cissé Lo gars yi gëj nañ koo gis. sëñ Moustapha mi ngi fi ci suba sànq ñu ngi waxtaan. mi ngi fi mi ngi fi di baax mi ngi fi di yaakaar Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul sànq yàgg nañ ci téléphone bi euh, waxtaan lu yàgg yàgg yàgg nit la koo xamante ni comme ni ma wax sama biir waxtaan sànq fi may tàmbalee nuyu ak ziar ak ñaan. Serigne Moussa mi ngi fi mi ngi ci jàmm bu wéra a wér wér a wér euh, tawet ku ko du def doomu aadama bu du tawet ci kaw suuf nee ma kii la tawat xëy na am na ñoo xamante ni mën nañ koo yaakaare janeen tawet waaye tawat ji dal doomu aadama bu nekk moo ko dal mu yaram wu sutante waaye yàlla def na féex na baax a baax a baax a baax mi ngi def ay déplacement mi ngi dem fi mu bëgg dem mi ngi seeti ñi mu bëgg a seete xëy na nit ñi lim tàmm ci moom te daan ko dégg ci moom muy acte politique bi mu daan mëne wala combat politique gisatuñ ko déggatuñ ko te loolu yaakaar naa un an wala deux ans ci ginnaaw soo leen demee ci YouTube bi bëri na fu mu renoncé wu ne wàllum politique pare naa ci dem naa wax xalif général des mourides pare naa ci wàllum politique kon ñu baree bari suñ toogee déggatuñ ko ci wàllum politique mu toog jàpp njàmburam nekk ak njabootam di noppalu ndax ku ne xam ne ci parlement CEDEAO ci la jóge woon quatre ans nga yéeg ci ay avion ci mag ak âge bi mu amoon di tukki même jour par jour sept jours sur sept kooku tey su demee ba yaakaar naa voyage yooyu defatu ko dina fayu ci aw yaramam <laughs> loolu yaakaar naa man bokk ci li ma jàpp ci tawatam loolu ci la ci la ci la ci la gën a bokk bi mu demee nag euh, mu ngi noppalu la yàlla may na ko fi mu toll nii xam naa ne ak wér bu baax a baax a baax a baax ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaw